رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا لذة الأوقات في أيام رمضان فيك عبادة وصيام فدموعنا بخدودنا رقراقة تسقي قلوبا زانها إسلام تسقي قلوبا زانها إسلام رمضان يا رمضان يا رمضان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 adada ma taalamahu min bida'i lamri ila muntahahu wa ala alihi wa sahbihi bukuratan wa asila rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki réew mi mbokki àddina bi mbokk yi déglu jataayu ramadan noo ngi del siwaat di àndaat ak ci beneen jataay xam naa incha allahu taala jataayu tay bi mooy doon jataay bi ñuy tënkee jataay yi mooy doon jataay bi ñuy tënkee jataay ngir yàlla euh, weer waa ngi dëgmalug jeex ki ñuy waxtaane ni ma leen ko waxee woon ci ndoorte li waxtaane ko ci ay weeri weer du tax ñu jeexal dundam barkeel gi mu barkeel taxawaayam rëy gi mu rëy muy amirul muminin sayiduna umar ibn alxataab radiallahu taala anhu ba tax na amal nañ ci fukki jataay yu teg bu ci nekk am na lenn ci dundam luñ ci indi yoo xam ne buñ ko toppaatee ñu jàngat ko dinañ ci jëlee lu nu mën a jëriñoo ci sunu dund ci liggéey bi nga xam ne nii liggéey na ko bàyyil ko xeet wi waaye taxawaay yu rëy yi nga xam ne taxaw na ko ba léegi xeet wi di gis njeexit yi ngir yàllaak yitteem ju kawe ju yëkkatiku fa tabarakallahu ba tax na euh, xat-xat yi bari na lool ci koor gi ak yi nuy nekk ci ay déplacement yu bari ci ay jataay yu nuy teew ci ay waxtaan yu nuy amal ba tax na léeg-léeg am yennati fan yu mel noonu nañu tënk ba ci fan yu mujj yi ñu ngi nekkoon ci tukki yi ba démb rek lañu wàññeeku sabab na fan yi amaluñu jataay loolu tax na na jataay yi waroon a toll sax am na yu ci yu ci wàññeeku waaye lépp rekk yiw la ndax bu ñu nekkul ci jataay bi ñu ngi ci yeneen jataay yu ni mel ak waxtu wu chargé chargé nag ak xat-xat lool waaye lépp rek ci mission bi la waaw lépp ci mission bi la di ñaan yàlla mu barkeel lépp lépp lu nuy wax yàlla na yàlla tax lu nuy jëf yàlla na yàlla tax yàlla yàlla feesal jëmmam ji ci sunu xol sunu làmmiñit lu muy àddu yàlla na ko jëmmam ji rekk lal fa tabaarakallaahu ko defee kon ñu fàttali rek ab tënk lay doon ba yegsi ci fi ñuy yemale tënk yi bu lu yàlla bàyyee ba déwén ak jàmm nag incha allah dañuy wéyal mottali rek lenn ci dundam ñëw nag ci dundu sayiduna Usmaan ibnu Affaan radiallahu taala anhu moom it ubbil niñ ko ubbilee sayidna Umar ibnul ci deux mille vingt deux bi ubbiloon ko sayidna Abubakrin Siddiq ci deux mille vingt et bi bu yàlla bàyyee ba deux mille vingt trois it incha allah ca koor ga bu ñu mottalee tënk ci Umar ibnul Xataab ñu jàll nag ci Ousmaan ibnu Affan radiallahu taala anhu man mi koy wax ak yéen ñi koy déglu yépp yal yàlla dogal ñu fekkee ko jàmm incha allah bu nu jeexalee tey dañuy ñëw rek ci xam ko ak euh, suukaru koor su ko defee naafile moom gannaaw fan yi rawante yi am na ko defee rek ñu bàyyi ko noonu ba beneen yoon naafile yi léegi defe naa ku ci bëgg di ko topp di ko def bari na réseau yu koy jàllale yàlla yàlla doole suturata nangul ñëpp mbokk yi Omar ibnul lañ doon waxtaane Omar moomu nga xam ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ginnaawam bu fekkoon yenent day am euh, kon Omar ibnul Xataab yenent lay doon yenent bi sallallahu alayhi moo ko wax loolu ne ginnaawam bu fekkoon yenent day am sayiduna umar ibnul xataab yenent lay doon sayiduna umar ibnul xataab ku ragal ka yàlla ku daan déglu laaye alxuraan yi daanu xëm ñu yóbbu ko këram ay fan ñu koy seeti ngir ragal yàlla gi mu ragaloon yàlla ragal yàlla mu yeggoon ci fu mu toll day jooy dem ba ñaari lexam yi dangay gis mark ronxoñam yam doon jooy foo toll di ngay seen mark yooyu noonu la ci lexu Seydina Omar mbokk yi ki ñu doon waxtaanee muy Seydina Omar ibnul Xataab bi ñépp di nëbb seen lislaam moo njëkk a taxaw fesal ko daa dugg ci lislaam rek fesal lislaamam moo taxit ña doon nëbbu seen lislaam ba mu duggee ci lislaam la ñépp fësal seen lislaam ñeen fukk jullit ya moo leen mottali ñu man ñeen fukk kër arqam ibnul abil arqam fa lañ daan nekk làqatu julli waaye keroog bi mu tuubee lañ noddu ca kaw ñu génn làqatu ba jeex kooku mooy Seydina Omar ibnul Xataab radiallahu taala Seydina Omar mooy ki nga xam ne bu soobuwaan ci mbedd seytaani day daw mbedd moomu jaar ca weneen mbedd weneen mbedd bu bokkul ak fa Seydina Omar jaar jaar wala beneen mbedd bu bokkul ak ba Seydina Omar jaar Seydina Omar mooy aje dëggu ja nga xam ne nii dëggam nga faalewu ca ku ko yedd wala ko ko mere dëgg daal lay wax ba Seydina Aliyun seddal na ko sax ne dafa mel ni malaaka moo nekkoon ci kanamu Umar Xataab di ko gide di ko jaarale ci yoon ba nga xam ne lu mu def rek wala mu wax ko loola day dëppoog la nga xam ne nii mooy li gën la yàlla bëgg mooy ki nga xam ne moom lañ daan wooyee abu hafs dàkkantal la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko ko dàkkantale seydna omar ibnul xitaab ci saxaaba yi teewee yennati xare yi gën a mag ci lislaam la bokk xare badar seydna omar teewe na ko xare uhud seydna omar teewe na ko xare xandaq seydna omar teewe na ko bayatu ridwan seydna omar teewe na ko xaybar Seydina Omar teewe na ko fatxu Makka Seydina Omar teewe na ko xare Xunayn Seydina Omar teewe na ko ak yeneen ci ay xare yoo xam ne nii bu mu ci rek Seydina Omar ibn al taala anhu teewe na ko mbokk yi Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu moo lislaamu Umar moo ubbi lislaam gàddaayam ndimbal la ci jullit ñi jiiteem yërmande la ci jullit ñi mu ne buñ julli ca Kaaba ga la ñuy nekk di julli euh, ba Seydina Omar walla daawuñu julli am accès yegg ca Kaaba ga daawuñu julli am accès yegg ca Kaaba ga lu dul ne Omar tuub na ba dugg ci lislaam bi mu tuubee moo xeex ak waa ba julli ca Kaaba ga ñun ñëpp ñu julleendoo ak moom Seydina Omar ibnul Xataab loolu mbokk saxaabaam di Abdullah ibnu Mas'ud moo ko ko seedeel mbokk yi ay xar baaxam Yonent bi seede na ko toog na bis rek ne waaju baax a ngi abu bakar Aboubacar waaju baax a ngi nii loolu Tirmisi yi moo ko nettali abi saidin al xuduri ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na waa àjjana dañuy nekkante ci dëkkuwaay yu kawewante nee na am na ñooñ dangeen ngeen leen di seenu kom ni ngeen di seenoo bidiw bu nekk ci asamaan Abubakar ak Omar ca ñooña la bokk ña ngeen di seenu mu mel ne bidiw bu ngeen di xool ñu nekk ci asamaan Euh, ñoom ñaar sax danañ gën a kawe loolu moom Aboubacar ak Umar radiallahu taala anhuma Abu Daawud moo nu nettali xadis boobu ba tey bi sallallahu alayhi wa sallam di xar baaxu Umar ba ne am na ñu leen jiitu woon ñoo xam ne aw nit lañ ñu ñu daan deey ñuy am yenkewaluk sunu borom mu ne bu fekkee te ñooñu kat mu ne doonuñu ay yenent su fekkee am na kenn ci sama xeet ko am maqaama boobu kooku Umar ibnul Xataab lay doon loolu luy wane moom Seydina Umar ibnul Xataab ak yëkkatikoom ak maqaamam yu kawe Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu wax ne yàlla def na dëgg ci làmmiñu Umar yàlla def na dëgg ci làmmiñu Umar ak ci xolam Abdullah ibnu Umar wax ni nit ñi amul menn mbir mu mos a ci ñoom am ñu wax ci mbir ma Seydina Omar wax lu dul alquran bu wàccee la Seydina Omar ibnul Xataab wax loola lay dëggal Taariq Sihaab ne dañ daan waxtaan ci suñu biir ne Omar ibnul Xataab daa mel ni malaaka mooy wax ci làmmiñam salim jëlee ci baayam mu ne yenent bi sallallahu alayhi dafa gis Seydina Omar mu sol benn yére mu ne ko ndax sa yére bu bees la wala bu màggat wala da ko foot mu ne ko dama ko fóot sol ko yenent bi ne ko sol yëre bu bees dundal nekk ku nu gërëm faatul nekk aji shahid loolu moo mu faatu ci shahid boobu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bis dafa yéeg ci Uhud montagne bu mag boobu nekk ca Madinatul Munawara Abubakar ang ca kawam Omar ang ca Omar ang ca kawam Ousmane ang ca kawam montagne bi di yëngatu di raj-raj yenent bi dóor ko tànkam ne ko dalal yenent nekk ci sa kaw wala siddiq wala ñaar ñu dëggalaa kon ku koy dëggal wala ñaar ñu ne ma shahid yenente ba mooy seydina muhammad siddiq mooy seydina abubakar ñaar ñi nga xam ne way shahid lañ mooy seydina umar ibnul xataab ak seydina usman ibnu affan ku ne ci ñoom ñaar dañ la boom te loola yenente bi laataa muy am waxoon na ko fekk booba amagul moom sallallahu alayhi wa sallam yeneen bi dellu wax ne ki gën a ki ëpp yërmande ci samaw xeet ki ëpp yërmande ci samaw xeet jëm ci xeet wi mooy Seydina Abubakrin Siddiq waaye ka ci gën a dogu gën cee amuk farlu ci diine ji mooy Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu yenent bi sallallahu na bis xaw ma ndax danaa fi toog ba faaw ànd ak yéen waaye su ma fi jugee na ngeen roy ci ñaar ñii muy Seydina Aboubacar ak Seydina Omar loolu mbokk yi maqaama yu kawe la yoo xam ne nii yàlla ràngal na ko Seydina Omar yu bare ci yi nu wax ni jaare ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu bokk ci ñi nga xam ne seenu àjjana laata nuy faatu la biir ci ñoom ne àjjana lañ jëm Abdurahman ibn Awf moo nettal ne yonent bi sallallahu alayhi bis nee na Aboubacar aljana la jëm Umar ibnul Xataab aljana la jëm Ousmane ibnu Affan aljana la jëm Ali ibnu Abi Talib aljana la jëm Talha aljana la jëm Zubayru aljana la jëm Abdurahman ibnu Awf aljana la jëm Saad ibnu Abi Waqaas aljana la jëm Saïd ibnu Zayd aljana la jëm Abu Ubaydat ibnul Jaraax aljana la jëm Tirmidi xadis 3748 xadiisu abdurahman ibn awf ñii ñëpp yenent bi tudd ne àjjana lañ jëm seydina umar ibnul xataab ca biir ñooña la bokk yenent bi toog na bis bunt bii kat dana ci fenkee koo xam ne waa àjjana ñoo ci gën abubakar ne tëll toog ba mu yàgg seydina umar ibnul xataab radiallahu taala anhu moom itamit ne tëll daal di génnee ca bunt ba anas ibnu malik ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee fekk fa pale wurus ma laajte pale o pale wurus bii di or ñu defaree lépp or pale bi kan la ñu ne benn waxambaane bu nekk ci Quraysh nee na ma njortu ne man la man leen waxambaane moobu kum doon ñu ne ma Umar ibnul Xitaab radiallahu taala anhu hmm? Umar ibnul kon yooyu yëpp ay mbir la yuy wane ay mayam moom Seydina Omar ngëm yàlla am yenent bi moo ko seede ci gént gu mu gént abi saidin al xudri moo nettali boo demee ci saywul buxaari fekk ko fa mu ne yenent bi sallallahu alayhi wa bis nee na dama tëdd nekk di nelaw ñu gaaral ma aw nit ñoo xam ne nii ñi ngi sol ay yére mu ne am na ci ñoo xam ne dañuy sol yére ba mu tollook seen ween falay lay yem mu ne am na ci ñoo xam ne dana weesu yeen euh, ween yi am aw nit ñoo xam ne nii dañ leen di solal yére ba muy direeku ci suuf mu ne euh, ca biir ñooñu Omar ibnul Xataab ñu gaaral ma ko moom mi ngi sol yére ba yére baa ngi direeku ci suuf nee na biñ laaj yonent bi loolu muy wundu mu ne diine la misaalu diine la da ngeen gis ñu sol seen yére mu toll ba ci seen baat seen gëm foofu la toll noonu mooy tolluwaay bi ci misaal ñaweesu foofu loolu mooy tolluwaay bi ci misaal mais Umar ibnul Xataab mi ngeen gis yéreem gudd ba ci ba ci suuf di direeku loolu mooy misaalu tolluwaayu diineem maanaam diine Seydina Umar dafa jot sëkk dafa mat sëkk ba bu doon yére la mi ngi direeku ci ci suuf radiyallahu taala anhu yenent bi seedeel ko xam-xamam bu rëy bu mu amoon euh, Hamza nettali jëlee ci baayam euh, Buxaari ba tey génne ko ca saxi xamba ak muslim ak tirmisi yëpp génne ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dama tëdd nekk di nelaw euh, ñu jox ma soow mu may naan mu ne maa ngi naan bay gis mandita ma muy manifesté wu ba ci samay we nee na ma jottali ko Umar ibnul Xataab moom mu jël naan ñu ne ko yenent bi loolu moom lu muy tekki mu ne xam-xam la xam-xam xam lañ ma misaalal noonu ma koy naan ba ma naanee ba màndi ci laa ko jottali Umar ibnul Xataab loolu di wane xam-xamu Seydina Umar ibnul Xataab zahabi boo demee ci siyaru alaami nubala wala siyarul xulafa siyarul xulafa zahabi mi ngi fay nettali ne abdullah ibnu omar nee na seydna omar jàng na suratul baqara fukki weer ak ñaar nee na keroog bi mu mokkalee saar wi wala bi noppee ca njàng ma dafa reen di gëléem ngir feetu ko seydna omar ibnul xataab radiallahu keroog ba mu noppee ca njàng ma dafa reen ngir feetu ko loolu di wane fonkam xam-xam ak bëggëm xam-xam moom Seydina Omar dañuy résumé waat rek lu ci nekk ci jaaroon nañ ci indi ci ay détails dindi ci ay détails mu bokk ci li ñuy jëlee ci dundam mooy dénkaaneem yu rëy yu sell yam daan dénkaane bàyyil ko xeet wi daan na wax moom Seydina Omar ne na ngeen dem jàngi balaa ngeen a jiite balaa ngeen dooni njiit dem leen ngeen jàng Buxaari moo ko génne ca kitaabul ilm mhm. ndi woon nañ ci détail indi ci lu ci xaafim xajar wax ci waxu Seydina Omar jooju Xaaris ibnu Muawiya al bis dem naa ci Seydina Omar ibnul Xataab di ko laaj ay mbir nee bi ma yeggee ma Madina mu ne ma lan nga fi wut mu ne ko dama ñëw ngir laaj la ay mbir mu ne ko yu mu doon mu ne ko bëri na man ak sama soxna bu ñu nekkee ci néeg bu xat waxtu julli teew bu fekkee julli naa ndaw si nekk sama wet euh, bu ma jullee moom ndaw si nekk sama wet su boobaa mën nañ nekk ci biir néeg bi waaye su jullee taxaw sama ginnaaw su boobaa day nekk ci biti tabax bi mm, Seydina Omar radiallahu taala anhu ne ko da ngay jël sa digganteeg moom nga def fa benn yére su ko defee nga daal di julli maanaam benn rido rido da ngay jël rideau nga def ko sa digganteeg moom ndaw si taxaw fi tolloog yow ngeen daal di julli mu laaj ko ne ko waaw ñaari ràkkee gannaaw tàkkusaan ndax mën nañ ko julli mu ne ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu ko daan tere mu laaj ko lu jëm ci mbirum xisas di nettali histoire seydina omar ibnul xataab radiallahu taala ne ko bu la soobee bu la soobee daa am ci nun ñoo xam ne daal dañuy nettali histoire di nettali mu ne ko bu la soobee bu soobee ni ko ko waxee mel ni seydina omar daal daf ci sawarul lool mu ne ko dama bëgg nga tontuma ci lu leer soo ma ko Euh, digalee ma continuer bokk ca ñooña wala it ma bàyyi ko Seydina Omar ibnu Xataab ne ko dama ragal nga nekk ne nettali xisa yooyu nit ñi seen bakkan yëkkatiku ci yow euh, mu dem ba mu yàgg nit ñi yaakaar ne yow yaa leen tiim ba mel ne bidiw bu nekk ci asamaan yàlla daal di la sippi ba nga gën a suufe seen dëggu ya yowmal xiyaam loolu di wane ne Seydina Umar ibnul Xataab euh, bàyyil nañu fi ay message ay ndénkaane ba ci ay masala yoo xam ne nii tontu na ko euh, xabisatu xabisatu bnu jaabir radiallahu taala anhu ne gisuma kenn ku ëpp ñeewante bi mu jiitee jullit ñi wala mu nekk ku gën ku mel ne Seydina Abubakar ni Siddiq waaye gisuma kenn ku gën a jàng téere yàlla bi wala mu gën a dégg diine wala mu gën a mën a taxaw ci li yàlla digle wala mu ëpp wegeel ci dënnu nit ñi ba mel ne Umar ibnul Xataab radiallahu taala anhu waaye gisuma ku ëpp kersa Ousmane ibnu Affan radiallahu taala anhu bokk na ci li nga xam ne bàyyil nañu ko fi mooy naafil weeru koor waxoon nañ leen ko wax nañ ko ay yoon yu baree baree bare tey bu ñu amee di dajaloo ci jàkka yi dinaa fi la ndeysaan ay millions yi millions yi millions yi jullit ci àdduna bi yëpp fi jullit ñi nekk weeru koor jot ñëpp dem ci jàkka yi imaam taxaw jiite ñëpp roy ko loolu sayiduna umar ibnul xataab radiallahu taala anhu la ko umma bi di gërëme ndax moom mooy bi moom mooy sabab bi hmm? Abdullah ibn Mas'ud daan na wax ne ki gën a jàng téere yàlla bi te gën ñu koo dégg gën ñoo dégg diineem ji Seydina Umar ibnul Xataab la ñu gën a jàng diine te moom moo ko gën a dégg radiyallahu taala anhu position yu jël sunu borom tabaraka wa taala ñëw ànd caag moom bokk na ca bi mu waxee yenent bi te ñoo jàpp Ibrahim muy jullikaay yàlla wàccee laaye wa taxadu min maqaami ibrahima musalla moo waxoon yenent bi tee ngaa digal sa jigéen ñi ñuy muuru sa soxna yi sa njaboot gi ndax ku baax ak ku safaan yëpp na dugg sa kër gi ba mu ko waxee yenent bi yàlla wàccee laaya ne ko waxal say soxna ak say doom ak jigéenu julli ñi ne ñuy muuru ba mu ñëwee it di yedd soxna yeneen bi sa alayhi wa sallam ci seen fiiraange ku ci mel ni ki Xafsa ak Aïcha ci mbir yu xewoon kër Yonent bi sallallahu alayhi wa ba am nu ñu ca doxalee xisa la boo xam ne leeraloon nañ leen ca leen nat ca xisa ba bam ñëwee di leen yedd ba naan leen su ngeen sàgganee ba Yonent bi bàyyi leen fase leen yàlla dana ko watteel ñoo xam ne ñoo leen gën bi muy wax loolu ba kàddoom daanu la yàlla wàccee laaya di dëggal loolu ca suuratu tahrim waaw ca suuratu tahrim ak yeneeni mbir yoo xam ne leeraloon nañ ko lu mel ne xare badar la mu amoon ne gis-gis ca ñañu jàppoon ca xare ba te yenent bi jëloon yeneeni gis-gis bàyyi fa gis-gisu Seydina Omar ba ba yàlla wàccee laaya Seydina Omar la wax ne la mu gis loolu lañ waroon def te mooy jàpp leen ñoom ñëpp ray leen ñoom yéefar yeenu jàppoon loolu moo doon gis-gisu Seydina Omar mbokk yi Seydina Omar ibnul wax nañ leen ko léegi mayam yeggoon na ci bu sooboo ci mbedd seytaane du fa soobu nitu caaxaan yëpp dañ ko ragaloon ba ci yenn nat yoo xam ne sax ay fol la rek kaf Seydina Omar ibnul Xataab moom yooyu ña ko doon def dañ ko doon ragal dañ ko doon ragal pour bu ñuy kaf wala ñuy foye yenn yi nga xam ne juralu leen sax bàkkaar waaye caractère bu rëy bi ñu xamoon ci Seydina Umar ibnul Xataab na daawuñ ca bokk Seydina Umar xelam xalaatam yeggoon na ci yenent bi daan na tëral léeg-léeg mbir mu ñëw laaj ko ne ko lii nga tëral est-ce defee woon ko nii nekkul lu gën ba ci li ci gën a ràññeeku rek mooy xas xaswatu Tabuk xare boobu nga xam ne nii abi hurayra radiallahu taala anhu nee na keroog xare ba saxaaba yi dañoo xiif ñàkk lu ñu lekk la ñu yóbbaloo woon yépp seen yóbbal jeex ñenn ñi tuuti moo leen dese saxaaba yi bi ñu jaaxlee ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ndax mën nañoo am ndigal ci yow ngir rey sunuy gëléem lekk ci ndawal li diwoo geres gi yonent bi sallallahu alayhi wa leen waaw man ngeen ko def Seydina Omar bi mu ñëwee fekk gaayee waaj yeewi gëlëm yi ngir bëgg koo loj ba koo ren di jëfandikoo ko mooy loj gëlëm dañ koy loj mu ne leen li ngeen bëgg a def lu ko waral ñu nettali ko li xew ak leen yonent bi wax mu dem ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko gaa yi de nee naa leen nañ nekk ma ñëw diisoo waat ak yow gaa yi lii buñ ko defee buñ bëggee ñibbi duñu am lu ñu yóbbu du ñu doy te ci xare bi duñu am ay gëléem yuñ mën a jëfandikoo ànd ak war ce gëléem yi ngir jëmmarloog noonu yi kon loolu jàpp naa ne du solution mel ni yonent bi dane ko lan mooy solution mu ne ko ñaanal yàlla ci gaa yi li ñu dese ci ñam nañ ko indi nga ñaanal leen ci barke mën naa am yàlla def ko ca yonent bi ne ko waaw nañ ko indi yenent bi woo gaa yi dem indi ay der ay lalukaay yoo xam ne der la ñu ñu lal ko daldi indi la ñu yóbbaloo woon la ca desoon ñii indi ti bu tàndarma ñii indi pepp ku nekk indi dara yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jël loxoom yi tedd teg ca ñaan ca barke daal di ne leen xusu xudu fi awiyatikum jël leen ko ngeen delloowaat ko ci seen ndab yi fi ngeen doon def li ngeen dencoon nee na ñu jël ko delloo ko ca keroog lël ba armée ba yëpp dañoo duy ba seeni ndab fees ñu lekk ba reggal ba regg ba desal ab yóbbal bu nuy yóbbaloo keroog la yenent bi wax maa ngi seede ni amul ku ñuy jaamu ci dëgg yenent bi yàlla ku yàlla sunu borom di seede ne man mi yàlla moo ma yónni baat bi amul benn jullit bu ciy faatu te amul benn sikk sàkka ci baat bi ba noppi ñu koy tëjal buntu aljana kon gis nga xalaatu Umar ibnul Xataab keroog xaswatu Tabuk moo sauvé jullit ña ba nga xam ne nii la ñu naroon a def ci rey seen gëlëm amul ngir yàlla ak taxawaay ak xalaat bu rafet bu bàyyeekoo ci Seydina Umar ibnul ak aji dappatikoo koor gi Abdullah Umar nee na Seydina Omar radiallahu taala anhuma euh, bi muy bëgg faatu bis yëpp lay woor bis yëpp lay woor moom Seydina Omar bis yëpp lay woor Seydina Omar ibnul Xataab ak ku topp ki sunna roy ki yenenti roy ji aji roy nga xam ne nii lu yenent bi defoon nam ko defee woon noonu rekk la koy defee euh, ku bañ ki ba nga xam ne yegg na ci mu doon wax ak bis xajarul aswad bi mu ko fóonee ne ko dama gis ak yenent bi di la fóon ma fóon la waaye bu fekkoon ne yenent bi fóonu la duma la ndax xeer nga doo lor doo jëriñ waaw doo lor doo jëriñ toppam googu ak wattandiku nit ñi tàbb ci bokkaale yóbbee woon na ko garab googu yenent bi toogoon doon jaayanteeg saxaaba yi aw nit dem ca garab ga di fa jullee ngir barkeloo ko mu dog lu garab ga moom Seydina Omar loolu leeraloon nañ ca indi woon nañ ca ay taxawaayam wane woon tamit ne moom la niveau am toll foofu waaye du moy li nga xam ne nii lislaam mayewul kenn barkeelu ci benn njeexitu yonent wala yu ni mel déedéet waaye moom moo jàpp ngir sàmmal nit ñi yenn yi ngir bañ ñu tàbbi ci yenn yi tax mu amoon sévère googu noonu le waaye ala kulli xaalin lislaam terewul barkeelu bokkaale nag dana ko tere barkeelu gu dem ba jur mel ne dañuy jaamu loolu la sayiduna umar ibnul xataab radiallahu taala doon dawloo ñi nga xam ne ñoom ñooy jullit ñi na mu bëree woon xam-xam man koo jàngale mënoon a jaamu yàlla dinaa guddi mënoon a jaamu yàlla giirug dundam mujj gi mu koy woor noonu la nekkee woon nag aji tabe ba lu tàbbi waan ci loxoom mu jël ko joxe ko amas wax ne bis nekk naa ci umar ibnul xitaab radiallahu taala anhu ñu indil ko ñaar fukki junni diinaar ñaar seydna umar fa mu toog la koy séddale ba ba muy jug dara desul ci loxoom mu nekk koo xam ne ku bari lum daan saraxe suukar la ñu laaj ko lu tax ngay saraxe suukar mu ne dama ko bëgg moo tax ma koy saraxe yàlla mu ne lan tanaalul birra xata tunfiqu mimma tuhibbuun du ngeen am mukk àjjana lu dul da ngeen dépensé li ngeen bëgg waaw li ngeen bëgg loolu moom it indi woon nañ ci ay mbir ci luy wane li nga xam ne nii mooy tabe Seydina Omar ibnul Xataab radiallahu taala anhu Seydina Omar ak yëgam ak cofeelam ci yenent bi yegg na ci bim faatoo mu bokk ca jullit ñi nga xam ne touché na leen lool ba mel ne ku tàqalikoog sagoom ba keroog bi Seydina Omar euh, wala Seydina Abubakar wootee ci jàkka ji ñëpp ñëw toog moom bokk na ci ñi taxawoon lànk doon wax kàddoom yooyu rek yenent bi bàyyi leen naan faatu na loolu naa fekk yee koy wax Euh, topp ko topp ko ba Seydina Omar bi muy toog lu mu bañ a toog ba Seydina Omar jàng discours am ba jàng laaya ja Seydina Omar nee na nag bi ma déggee kàddu Abubakar yi attanatuma sama tànk yi attanatul sama jëmm ci laa daal góor wala ci laa daal di sukk gëm ne yenent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam faatu na loolu jaayante gi nga xam ne jullit ñi jaayante nañ kook Seydina Abubakar rôle bu rëy rëy rëy la ci so la ci joué moom Seydina Abubakar waaw ndax bi coow li baree tiraillement bi am ku nekk samp sa candidat moom bokk na ci ñi officialiser jàppaleem jëm ci Seydina Abubakar Siddiq waaw ba nga xam ne nii euh, am na ñu jaayante woon ak moom Seydina Abubakar waaye nekkuñu boromi kàddu ne ni nga xamee ne Seydina Omar borom kàddu la waaye ba gaa yëpp dajaloo ca jàkka ja ah moom moo taxaw moom Seydina Omar wax leen ne bu fekkee Yonent bi sallallahu alayhi faatu na tamit bàyyi na fi leer goo xam ne nii mi ngi ci seen kanam ngeen mën cee niitoo Abubakar mii keroog bi yenente bi eh, gàddaay bàyyee ko Màkka jëm Madina moom la àndaloon kon ki gën a yay yéen jullit ñi ngir méngoo seen mbir Abubakar la jug leen ngeen jaayanteeg moom ñëpp jug jaayanteeg moom eh, fekk ma nga ca kaw min barba moom Seydina Abubakar Siddiq radiallahu taala anhu loolu taxawaayu Umar ibnul Xataab la Seydina Abubakar bi mu faloo nekk xalifa def ko mu nekk juge bi moo njëkk a nekk juge bu yaate ci lislaam moom Seydina Aboubacar bi Seydina Aboubacar di bëgg a faatu moom la tànn ngir mu jiite jullit ñi ganaaw di diiso diisoo yu xóot sottante xalaat ñi opposé ñi nangu Seydina Aboubacar bokk ca la mu jëfandikoo mooy bam seggee xalaat ya gis na ne la ca gën a not ca ñooy responsable mooy Seydina Omar la ku tàng la nag ku naqari deret la ci waxin ci waxin waaye diis disu mbir yi kenn àttanu ko ku moom moo taxit bi mu ko falee gars yi di jàmbat wexam mu taxaw wax ak ñoom nag di ñaan wax ak ñoom ci biiri bët ne kat dégg naa li ngeen di wax yéen a ngi naan dama wex yéen a ngi naan dama tàng waaw ma yeneen be bee nekkoon de bi ngeen xam ko te na ngeen ko xamoon mu nekkoon ku bëri yërmande nekkoon ko nooy ba yàlla di ko melal ci bil muminina raufun rahim man ma nekk ci wetam nekk jaasi ju mu bojj ju mu bocc fekk dugalaatuma ci sama mbar duma ca dugg noonu laa nekk yenent bi bam faato faatu gërëm ma alhamdulillah ca gërëm gëmma ma bu gërëm loolu kontaan loona ma même taxawaay bi laa am naw Seydina Aboubacar moom it Seydina ngeen xam ko mu nekk nit ku bàyyeeku nekk nit ku tabe nekk nit ku nooy moom ma nekk mbindaanam nekk ku koy jàppale jël sama tàngoor wii jaxase kook seddaayam bële nekk jaasi ju ñu bocci moom it fekk dugaluma ci mbaram duma fa dellu ca loolu laa nekk ba mu génn àdduna gërëm ma maa ngi sant yàlla ci ngërëm googu léegi nag man la yàlla dogal maa yor mbiri maay xalifa bi na ngeen xam ni tàngoor woowu ngeen doon wax ci Omar kat dafa gën a yokk wàññeekuwul dafa gën a yokk waaye tàngoor bi kat fi mu jëm mooy tooñkat yi ñuy jalgati ñi wàcc yoon mais ñi nekk ci jàmm njub di dund seen maa maay kii gën a nooy ci ñoom duma bàyyi kenn di leen tooñ wala kenn di jalgati ci ñoom ba amee ku jalgati jalgatikat yooyu tooñkat yooyu criminel yooyu Omar ibnul Xataab dana jël seen lex bii teg ko ci suuf dëgg ca kaw lex ba waaw waaye bu fekkee ne euh, waaye gannaaw sama tàngoor woowu yëpp jëm ci tooñkat yooyu ñu nekk ci njub ak diine ak tegu fi ñu war a tegu ñooñu man pare naa jël sama lex wi lex bi teg ko ci suuf ñu dëgg ci kaw sama mission nag lii la yëg leen ko mooy seen tool yi li cay jugee yéenay boroom li li ma ci sañ a jël mooy li ma ci yàlla jëlloo su ma ko jëlee du del si man de waaye mi ngi dellu siwaat ci yéen ci seen njëriñ li ma tax a jóg mooy fexe seen am-am yokk liy jafe-jafe ma taxaw ci fexe ba seen sécurité am bu ngeen fàddoo bàyyi seen njaboot ma fexe ba sàmmal leen seen njaboot na ngeen ma dimbale ci lii ma yàlla dénk ngeen euh, conseiller ma lu baax ngeen digal ma lu bon ngeen wattandikuloo ma lii ma yàlla dénk ngeen gunge ma ci loolu bokk na ci leen nag loo xam ne wax na ko gannaaw bi nga xamee ne yàlla dogal na mu jiite jullit ñi bi mu jiitee jullit ñi maanu gu mat sëkk ragal yàlla gu mat sëkk la jiite jullit ñi moom Seydina Omar maandoom ak ragal yàllaam yeggoon na ci mujaahid ne aj jot na mu dem aji juróom-ñett fukki dërëm la yóbbu juróom-ñett fukki dërëm la yóbbu quatre-vingts dirham moom la dépensé diggante Makka ma dina aller tour bi mu ñëwee sax loolu def ko metti ba muy doo loxoom ci suuf naan Omar binduñu la ngir ngay yàq alalu yàlla ji lam yóbbu du dara doyul matul sax waaye loolu nga xam ne nii jël na ko rek te moom mooy président de la république tax na mu tiit bay dóor loxoom ci suuf naan ko binduñu la yow Omar ngir nga yàq alalu jullit ñi Abdullah ibnu Amir ibnu Rabia ne gis naa Omar bis ma nga jël suuf donj suuf la jël di ko tam-tamal naan aka neexoon Omar nekk donj suuf bii aka neexoon Omar yaayam juru ko lépp ngir ragal yàlla moom Seydina Omar Qataada nee na Seydina Omar ibnul bi mu yeggee saam dañ ko defaral ñam togg gu neex lañ ko toggal biñ ko ko indilee tegal ko ko mu ne waaw jullit ñi ñàkk ana lan la lekk ba Omar ibnul Xataab fanaanee regg ci mburum sha'ir mburu muñ defaree peppum sha'ir mburu muñ defaree peppum sha'ir bi mu waxee loolu noonu lee Xaalid ibnul Walid mel ne dafay dalal xelam ne ko jullit ñu ñàkk ñooñu xanaa ëllëg yàlla fayee leen àjjana rek ëllëg yàlla fayee leen àjjana ngir seen ñàkk rek Omar bët yeey bas basi mu ngay jooy ne ko bu fekkee sunu cër ci àdduna mooy lekk mburum sha'ir gaa yooyu di way ñàkk ya ëllëg yàlla fayaleen àjjana laqad baanu bawnan baida ay waay sori wante nañ ñoom sori wante gu jéggi dayow la ilaha illa allah xoola ragal yàlla googu ñëw nga dem seedi sa njaboot tukki ñu tegal la togg gu neex nga tiim ko naan ay waay ñun bu ñuy lekk lii ana moom jullit ñi ñàkk amuñu mel ne dañuy dalal xelam naan ko ñi ñàkk moom yàlla fay leen àjjana rek rek mu tàmbalee jooy ronxañee bas basi lu xew bu fekkee ñooñu la yàllay fayee àjjana ñun ci àdduna yàlla mburu la ñuy fayee ñooñu raw nañ ñu te dootu leen dabati mukk daan na jël loxoom teg ko ci safara lii fi la ñuy résumé yi jàllagutoon fi la ñuy jeexale daan na jël loxoom teg ko ci safara moom Seydina Omar ibnul Xataab ba noppi naan hal laka ala hada sabrun ay Omar ibnul Xataab ndax lii mën nga ko muñ ndax lii mën nga koo muñ ndax mën ngaa muñ safara jël loxoom teg ko ci safara naan naan Omar ndax mën ngaa muñ ëllëg yowmal xiyaam safara ndax mën nga ko muñ Seydina Ali ibn bi Talib radiallahu taala anhu nee na gis naa bi Seydina Umar ibnul Xataab ma nga war ci kaw fas di rëppatal di dawal di dawal ma ne ko amirul muminin foo jëm mu ne ko dafa am généem gëlëm goo xam ne nii ci gëlëmu azaka yi la dafa rëcci moom lay nekk nii di ko wër mu ne ko nar ngaa sonal ñi nar a ñëw sa ginnaaw yaa ngi leen di tàggat nar leen a teg coono ndax ñemewuñoo wàcci e, lu toll ne dee deewu we ci fi nga xam ne jaar nga ko kon bu fekkee métit gii nga nar a yoree liñ la dénk ñu nekk sa ginnaaw de nar nga leen a sonal mu ne ko abal xasan bàyyi xasan bul ma yokkatloo maa ngi waat ci buur bi nga xam ne moo yónni yenent bi sallallahu alayhi def ko mu nekk yenent su fekkoon ne am na benn gëléem goo xam ne dafa dem ca tefesu furat ga loolu bu ëllëgee yomal xiyaam maanaam dafa sànku ca tefesu furaat ga loolu bu ëllëgee danañ ci audité Seydina Umar ibnul Xataab radiyallahu taala anhu ndax damay jàpp ne ndax man maay responsable bi ba gëlëmu kooka moom gëlëmam bu réeree wala mu am dara lu ko gaar ëllëg yàlla dana ma taxawal laaj ma Omar lan moo ci sa responsabilité fi jeexale jeexalee nettalib anas ibnu malik la radiallahu taala anhu ne bis dégg naa seydna umar ibnul xataab ma nga génn ne na bis umar dafa génn ma ànd moom topp ko ñu dem ba dugg ci benn tool benn tool nee na sama digganteeg moom miir a fa dox nee na Seydina Omar a nga ca digg tool ba naan amirul muminina baxin njiitu jullit ñi iskay iskay wallahi la tattaqiyanna allaha yabna alxitaab aw la aw la yuazibannak ma nga naan iskay ah maa ngi waat ci yàlla ne Omar ibnul Xataab di nga ragal yàlla de wala yàlla duma la ëllëg yow man xiyaam is kay amirul muminin ma nga ca biir tool ya moom cundum di wax kàddu yooyu naan is kay président ah di nga ragal yàlla de boo ko defu rek yàlla duma la ëllëg boppam lay waxal di boppam lay waxal naan président di nga ragal yàlla wala ëllëg yàlla duma la kay loolu cey loolu yal na yàlla doolu ñu sutura defal ñu dégg ak topp mbokk yi saxaaba bu tedd baa ngoog amirul muminin omar ibnul xataaba ngoog yal na nu ko yàlla fayal yal na nu ko yàlla fayal yal na nu ko yàlla fayal te yàlla defal nu dégg ak defal nu barkem waaw defal nu barkem yàlla defal nu dégg ak topp defal nu barkem ci barke alquranul karim ñu jeexale li nga xam ni mooy xel-xelu ak suukaru koor incha allah xel-xelu mbokk yi waxu imaamu shafii lay doon dafa dénkaane ne alayka bi taqwallahi in kunta xaafilan yatika bil arzaqi min xaytu laa tadri maa ngi lay dénk ragal yàlla ndéem dangaa nekk aji sàggan na nga ragal yàlla te nga xam ne wërsëg ci yàlla lay bàyyeekoo te buy ñëw doo xam fan lay bàyyeekoo mu ne naka nga mën a ragalee ñàkk te yàlla mooy wërsëgalaate yàlla mi mën a wërsëgal picc mu ne ci kaw garab wërsëgal jën bu nekk ci kaw géej ci biir géej yàlla mu du la fàtte yow mu ne képp ku yaakaar ni nag wërsëg pexe yu baree kàttan moo koy joxe mu ne kon picc du lekkandoog tan ndax tan day dem ca medd jël dara dem naaw ca kaw garab ga picc ma gën a ndaw dem di bokk ak moom la muy lekk kon mbir du doole mu ne na nga bàyyi xel ne dangay ngay ci àdduna te nga yëg ne xamoo kañ lay doon bu demee ba guddi gi lëndëm tëriis ndax danga nga dund ba fajar loolu xamoo ca dara ndax bari na ku wér dara dalu ko mu koy faatu bari ku feebar tëddi at te yàlla soxlaa gu ko jël ko bari na nit koo xam ne mi nga xëy di dox di ree fekk lañ ko war a sàngee bu faatoo usine ba defar nañ ko ba teg te xamu ca dara nee na bari na seet bu ñu waajal mu def mariage am war giseek giseeg borom këram mu ne fekk yàlla dogal na ne ruuxam dañ koy jël ca booba dogal ba ca laylatul qadr la tàbbe woon ñu dogal ne ruuxam dañ koy jël balaataa muy gisanteeg borom këram yàlla faat ko bari na ndaw ñu yaakaaroon ne danañ dund lu yàgg waaye tey seen yaram ya ña nga ca lëndëmug bàmmeel mu ne ku dund ba am juróom-ñett fukki at waaye nanga yëg ne bis nag dana jot ñu waajal la dugal la ci bàmmeel mbokk yi loolu nañ ci xalaat bu baax dénkaane yi li koy tënk ragal yàlla la ak wóolu ko mooy dénkaane mooy tënk dénkaane yi ragal yàlla bàyyi lim cere nekk ci lim digle wóolu ko wërsëg nga sabab lu xam ne yàllaa koy joxe te nga bàyyi xel ne yàgg-yàgg faatu te faatu buy ñëw day bett xamoon nan lay dikkee du da feebar soog di faatu déedéet du da ngay nekk mag soog di faatu déedéet du yàlla day noppi bàyyi la ba nga noppi ci mbégte mi nga nekk ak feet yeeg yu ni mel mu soog la faat déedéet nit faatu na te feebarut nit nekk na ci feet faatu nit nekk na xale faatu kon faatu amul âge âge amul âge boo xam ne ci ngay faatu wala wala wala mbokk yi waxu imaamu Shafii jooju moom mooy tënkaat li nga xam ne moom lañ doon indi ci li nga xam ne mooy xel-xelu tabaarakallaahu yal na yàlla dool li defal dégg ak topp yal na yàlla dool li defal dégg ak topp yal yàlla dool li defal dégg ak topp su ñu ñëw ci euh, suukaru koor te yëkkati jataay bi incha allah mbokk yi tey suukaru koor gannaaw biñ ci saar yi te jeexul ni mu ko waxee woon lu nekk rek tënk la suukaru koor mbokk yi biñ door léegi indi nañ ay ngëneel yu baree baree bari suratul yaasin indil nañ leen ci ngëneel suratul waaqia indil nañ leen ci ngëneel suratul mulk indil nañ leen ci ngëneel wadduha indil nañ leen ci ngëneel alam nashrah indil nañ leen ci ngëneel qul huwa allahu ahad moo ci mujjoon indil nañ leen ci ngëneen li ñuy jeexalee nag ren ci tënk ba yàlla dogalaat ñu ubbiwaat bunt bu ni mel mooy astaghfirullah mbokk yi ndaw lu rëy astaghfirullah mbokk yi ndaw lu am solo astaghfirullah ndaw lu kawe astaghfirullah ndaw lu mata saxoo mata baril di ko def rawatina fii jamono ji toll astaghfirullah maa ngi sàkku yàlla suturaal ma ci bàkkaar yi may toggoo ba musiba yu duma dal astaghfirullah maa ngi sàkku yàlla suturaal ma protéger ci bàkkaar yi may toggoo mu jéggal ma ko ba musibay bàkkaar yi bañ a këpp sama kaw mhm. astaghfirullah lu jamono yàqu-yàqu astaghfirullah day dox lu jamono yàqu-yàqu bu demee ba astaghfirullah doxatul mooy bu ñuy yëkkati tuub nga xam ne ni léegi ku tuubati yàlla dootul a jéggal waaye ci li yàlla suturaalee xeetu yenent bi sallallahu alayhi bàyyil ko ko fi gannaaw bi mu fi bàyyee ko ka yàlla dem ci yenent bi ngir jéggalu yàlla mu jéggal ko sunu borom tabaraka wa léegi li nga xam ne moom moo koy wattee ci wet gi mooy astaghfirullah mhm. astaghfirullah ñu bari astaghfirullah la ñuy wax mais déedéet astaghfirullah maa ngi sàkkoo jéggalu yàlla sunu borom yenent bi nee na man lazima al istigfaara jaala allahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dayxin maxrajan wa razaqahu min xaysu laa yaxtasib xadis la bu abu daawud solo nasaayi ibnu maaja xaakim ahmad shakir boo demee ci taaliqam ca musnad imam ahmad nee na xadis bu wér la yenent bi nee na képp ku taqoo astagfirullah képp ku ko ku ko saxoo yàlla dina la defal ci bépp jafe-jafe boo am mu saafaraal la ko teggil la ko xat-xat boo nekk mu génne la ca te dana la wërsëgal foo xam ne foogoo woon ne sax yàlla dana la wërsëgalee foofu dana la fa defalee wërsëg xadis boobu rek doy na ngir xam ngëneel yi nekk ci astaghfirullah rawatina laataa xadis ba alquran moo wax ne fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kaana ghafaara yursili sama aleykum midraara wa yumdidkum bi amwaalin wa baniin wa yajcal lakum jannatin wa yajcal lakum anhaara maa lakum laa tarjuuna lillahi waqaara yàllaa ko digle ne nañ ko saxoo ko saxoo istighfar sunu borom tabaraka wa la yombalal taw bu dee dafa jafe ci yow alal yomb njaboot yomb la xasanul basri dafa am ñu ñëw ci moom jàmbat bekkoor mu ne leen dee leen wax astaghfirullah am ko ñëw ci moom jàmbat ñàkk ñàkk mu ne ko deel wax astaghfirullah am ko ñëw jàmbar ko yéex a am doom mu ne ko del wax astaghfirullah mel na dañ ko laaj ne ko lu tax ñu bari ñëw ku ne wax la soxla nga ñëw ñoom ñëpp nga wax leen benn mbir te ku nekk la muy wut wuuteeg moroomam la muy wut mu ne ko yàlla lim leen wax rek laa wax yàlla moo ne fa qultu astaghfiru rabbakum ba laaya ji jeex yi ñu bëgg yëpp yàlla nee na ci istighfar mën nañ ko caa amee moo tax ma digal leen ko mbokk yi astaghfirullah lu mat di bari la maa ngi dénk ñépp nañ ko bari lim yi juróom ñaar fukk la tàmbalee téeméer jëm kaw li mu juróom ñaar fukk bi boo demee ci euh, euh, ibnu abi dunya nettali na ko bay xaqeeg asbahani ci seen téere ya nu ibnu malik jëlee ko ci sang bi sallallahu alayhi ne bis yenent bi dafa ànd ak ñoom ba mu yàgg ne leen jéggalu leen yàlla nee na ñu tàmbali di jéggalu yàlla di wax astaghfirullah mu ne leen mottali leen ko juróom-ñaar fukk ñu mottali ko def ko ba muy juróom-ñaar fukk yenent bi ne leen amul benn jaam wala jéebéer bu jéggalu yàlla juróom-ñaar fukk yoon lu dul yàlla jéggal na ko juróom-ñaat téeméeri bàkkaar mu ne perte na lool jaam wala jéebéer bu jëf ci bis lu ëpp juróom ñaar téeméeri bàkkaar te boo waxee juróom ñaar fukki yoon astaghfirullah ñu jéggal la juróom ñaar téeméeri bàkkaar loolu kon lim la mooy di saxoo di def astaghfirullah soixante-dix fois beneen bi mooy cent cent bi tabaraani moo ko génnee xadisu abdullah ibnu omar yenent bi sallallahu alayhi wa amul benn jaam wala masuma xëy benn suba lu dul jéggalu na yàlla sunu borom téeméeri yoon muslim ahmad eh, nasaayi ñoom ñëpp solo nañ xadis abi hurayra nettali ko ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee eh, wala dajale nañ dajale na nit ñi bis ne leen yéen nit ñi na ngeen tuub dellu ci yàlla man bis bu nekk danaa tuub téeméeri yoon téeméeri yoon abi salama ci riwaayam ne yonent bi dana leen bis bu nekk danaa jéggalu yàlla téeméeri yoon am na beneen riwaay bu wax ne danaa jéggalu yàlla suba ngoon téeméeri yoon riwaay boobu loolu la wax kon di def astaghfirullah bismillah juróom-ñaar fukki yoon baax na soo ko mënee def suba ngoon a gënati di ko def téeméeri yoon baax na di ko def suba ngoon a gënati lim yooyu lim la yoo xam ne bariwul te bari na ngëneel ku yàlla may jot gi te nga man ko lim limu astaghfirullah mooy mille neuf cent quarante boo ko déchiffré astaghfirullah un alif siin trois cent taa tombe quatre cent xayi ndigal ca njànginu mag mag ña neuf cent faa euh, quatre vingt raa deux cent liif lam xaza soo boolee loolu yëpp day nekk mille neuf cent quarante sept lim boobu baax na lool di ko saxoo lu ama am solo la waaw lu ama am solo la ko defee kon mbokk yi mi ngi noonu loolu lañ leen doon fàttaliwaat dolli ko ci biir yi nga xam ne ñu ngi ko doon indi ci koor gi istixfaar rek laa ilaha illa allah ak am solo yonent bi lim ci daan tëgg astaghfirullah al azim alladi laa ilaha illa huwa alxayyul qayyum wa atubu ilayh ngëneelu kese la allahuma anta rabbi laa ilaha illa anta xalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waadika ma stataatu audu bika min charri ma sanatu abu laka bi nimatika alay wa abu bi danbi faxfir lii fa innahu laa yaxfiru dunuba illa ant muy sayidul istigfaar ngëneelu kese la noonu nga koy toppee toppee ko ba ndeysaan taabiina yi taabiina taabiina yi ñu ci yàlla yi tëggin bu nekk tëgg nañ ko ci jéggalu yàlla ci astaghfirullah su ko waxtu maye woon astaghfirullah rek mën nañ ci def émission yi émission indi façon bu nekk baaloo nañ ko yàlla façon bu nekk baaloo nañ ko yàlla ñu su ko defee rek ñu bàyyi ci xel wax naa ko rek barki démb ca Kaolack ci guddig laylatul xadr ga waxtaan ñu doon def ca bustaan ma ne leen lu tax ñu baree ngi ñaan li ñu ñaan gisuñu ko mooy seen ndaba tilim te yàlla buy sotti dara boo ñëwee di ñaan tàllal ndab ndab li tilim danaan la demal nga raxas ko ñu bari bakkaar yu bari tax na yu bari lu ñuy ñaan yàlla ñaan ya lañ ca bëgg duñ ko ca gis ndax seen ndab yi la leen yàlla wax ne dem leen ngeen raxasi ko te dellu si yàlla yàlla raxasal na sunuy ndab fóotal na sunuy xol teg ñu ci yoonu saq yi maa ngi delluwaat di balu xàq ñëpp ñëpp àq yi ma yëg ak yi ma yëgul yi nëbb ak yi feeñ yëpp maa ngi ciy jéggalu di ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa taala mu boole nu jéggal ñun ñëpp ñun duñu wax ne ñu ngi jéggalu kenn ndax yëguñ kenn koo xam ne nii am na loo def ndax ñun ñooy wax waaw kenn waxunu kenn defunu ñun ñooy wax ñooy def kon nun ñooy jéggalu ñëpp di ñaan yàlla ñun ñëpp mu boole nu jéggal yàlla bu mu doon sunu mujj koor yàlla nañ ko fekkee yeneen i weeru koor ànd ak wér ak wérle ak mucc ak muccule bi barakati alqur'ani alazim wa bi xurmati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam lii lañ leen indiloon ci jataayu ramadan di ñaan yàlla ñu fekkee ko déwén indiwaat yeneeni jataay walhamdulillahi ala tamaami nasaluhu xatma ala alislaami xafidana allahu min alaafaati bi xurmati alqur'ani wassalaati subhaanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an laa ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala almursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا لذة الأوقات في أيامنا رمضان فيك عبادة وصيام فدموعنا بخدودنا رقراقة تسقي قلوبا زانها إسلام تسقي قلوبا زانها إسلام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام